wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim radiallahu taala an asxaabi rasulillah wala xawla wala quwata illa billah ya hammat cheikh yuxduri lana bi hada almaxdari waltaatufi bi nadaratin tatina bi dafari ñu ngi ñëwaat ci waxu mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu ci ifadatu ahmadiya cent trentième wax ji incha allah Cheikh Tidiane radiallahu anhu mu ne law kaana banasiruhuna wa qultu lahu taxayat anhu laa yasaahu illa taxayudu mu ne su fekkoon ne banaasiru mu ngi fii ma ne ko bàyyil la ngay def walla wanal ginnaaw ci la nga nekk ci moom mu ne du def dara lu dut mu bàyyi la ma ko wax sababuhu ñu ne li indiwoon wax ji Cheikh Tidiane wax ko anna baada naasi ataa yaxudal wirda lenn ci nit ñi dafa ñëwoon ci Cheikh Tidiane doon jël wirda fa qaala lahu sayyiduna radiallahu anhu indaka wirdun axar après Cheikh Tidiane posé ko question ne ko ndax am nga beneen wird boo wird après qaala rajulu waa ji mu ne naam waaw am naa wirdu banasir am naa wirdu banasir tariqa banasiriya am naa wirdu boobu noonu moom laa jël qaala yak fii ka Cheikh Tidiane ne ko kon na doy yemal ci wirdu boobu ngay def ibqi alayhi desal ci wirdu boobu xala rajulu ku góor ki ne ko arattu axada wirdaka man de damaa bëgg a jël sa wirdu bi xala lahu sayidna radiallahu anhu cheikh tidiane ne ko utrukal wirda alladi indaka bàyyi wirde bi nga yor mooy wirde banasir in arata zalik su fekk ne bëgg ngaa jël sama wirde bi fa qaala lahu rajul waa ku góor ki ne ko axaafu min banaasir man damaa ragal banaasir nag yaa ngi dégg dama koo ragal fa zakkarahu ci la ko Cheikh jaan waxee ne ko nag law kaana banaasir hunaaka banaasir moomu nga jël wirdam yaakaar ko bu fekkoon ne mu ngi fii nii nekk fii dégg nga ak man wa qultu lahu tahayyad anhu ma ne ko bàyyil si wird bi nga nekkee laa yasau illa tahayyudu du def dara dul mu bàyyi lam nekk ca moom waaw loolu nanga ko xam loolu nag <laughs> lu jërë bàyyi xel la parce que fii kii Cheikh Tidiane koy woon dooleem Cheikh Tidiane woon na ko ne ko kii nga yaakaar ba nga ragal ko bu fekkoon ne moom moo fi ne ma ne ko bàyyil si wirdu bi wirdam ba ba mu indi moom dina bàyyi wirdam bi kon fii Cheikh Tidiane nga wane xilaafaayu yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam dëgg waaw waaye nga jàppe ci ne wirde Tijaan yi doo ko boole ak beneen wirde bu mu mën a doon yaa ngi dégg te nga jàppe ci ne nañ bàyyi xel Cheikh Tidiane radiyallahu anhu amoon na wirde yu yoroon te daan na zikkar yu bëri waaye Cheikh Tidiane bi sallallahu alayhi wasallam def na ko bàyyil eh, eh, wirdi yi nga nekkoon ma jox la wirdi bi gën dégg nga ci la ko joxee lazim ma astaghfirullah salaatul fati laa ilaha illallah kon dëgg-dëgg loolu du ngeen gis lu ko gën a rëy ci askar du ko gën a rëy ci wird waaw donte nañu gëree suñu bopp ci yeneen askar yi waaye du ngeen gis lu gën a rëy loolu ci wird parce que loolu la yonentu wax Cheikh Tidiane bàyyil wird bi gën bàyyil wird yi nga yi nga nekk ma jox la wirde bi gën te Cheikh Tidiane am na yeneen wirde yi mu daan wirde kon ñu bàyyi xel ne wirde Tidiane yi dafa fiir duñ ko boole ak beneen wirde dangay ngay mën nga bàyyi mboolem wirde ya nga doon wirde nga nga wirde wirde Tidiane dégg nga su fekkente ne yaa ngi nekkoon ci beneen tariq waaw mu ne a shakhsul mubhamu fi hadihi almaqalati huwa al alamatu muhammad bun ahmad alshahir si mu ne waa kii nga xamante ne nag waa wax jii daf koo jaaxaloon lool lool lool mooy ku ñu xàmmee ku ñu ràññee Mouhamad bun Ahmad muy gën a siiwee ci Sanusi Seydi Ahmad Sukayrij radiyallahu anhu wax na ci téeréem bi ñu tuddee tanbihil ak ixwaan tanbihil ixwaan dégg nga baada dikri hadihi al maqaala mu ne yaani law qultu lahu utruk wirdaka li ajli wirdi la tarakahu wa axada anni dégg nga fa ahra anta mu ne yonent Cheikh Tidiane lim jubloon ci wax ji yëpp mooy bu fekkoon ne Banaasir mu nga foofu noonu nga xam ne mooy mooy njiitu tariqa bi tariqa Banaasiya Banaasir yi wala mooy njiitu wirde bi mu ne su fekkoon ne sax moom Banaasir dajee na ak Cheikh Tidiane ci jamono Cheikh Tidiane ne ko bàyyil se wirde bi ngir sama wirde bi mu ne ko noonu Cheikh Banaasir dina bàyyi wirdam bi mu ne ko rawatina yow mi nga xam ne nag taalibeem nga dégg nga wa qaala al alaamatu sukari fi kitaabi nafxatil anbariya Cheikh Seydi Ahmad Sukayrij wax na ci téeréem bi ñu wax an Anbariya téere yu am solo fii Ajwibati Sukayrija ci tontu yaa ngi dégg yi nga xamante ne mu ngi ko doon tontu ci ay question dégg nga qad jaa marratan baada al muridin li duxuli fi aadihi wa kaana mutaqallidan bi wasilati tariqati nasiriya dégg nga benn taalibe benn yoon benn bis benn taalibe dafa ñëw ci jamono Seydi Ahmad Sukayrij ngir bëgg a dugg ci tariqa ya waaye boobu mu ngi téye yaa ngi dégg tariqa nasiriya boobu ci la tënku fa amarahu cheikh radiallahu anhu cheikh tidiane radiallahu anhu da nga digal ko da nga euh, euh, ne ko bin silaaxi an awraadiha ngir mu bàyyi yaa ngi dégg wirde ya nga xamante ne moom la doon wirde da nga an awraadiha li yu ngir mu jox ko da nga tariqa tijaaniya fa adama aw fa azuma alayhi al amru mbir mi rëy ci moom lool naka lay def ba bàyyi tariqa nasiriya bi mu ñëw ci tariqa tijaane loolu daal lu rëy la ci moom dégg nga ànd ak nag nim fonkee yaa ngi dégg tariqa bi nga xamante ne moom la nekkoon dégg nga waaye ngir <coughs> mu dugg ci tariqa tijaaniya bàyyi tariqa nasiri itam loolu dafa rëy ci moom faqaalahu cheikh maanaam cheikh tijaane ko yo maatu lazim ma anta alayhi yaa ngi dégg moo xam nga nekk ca wirde ba nga xamante ne moom nga jàpp ci moom da nga aw aw tan tansalixu anhu lii ulaqinuka awraada tariqati al muhammadiya walla nga summeeku ci wirdu boobu noonu ba set ci wecc ngir ma jox la tariqa muhammadiya mooy tariqa Cheikh Tidiane bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mooy njiit bi loolu rek moom mooy li mën a ne fa qaala lahu sayidi fa qaala lahu waaji ne ko sayidi yow sama sang axcha mina cheikhi bi ba nasir man de damaa ragal sama sëriñ ba Nasir yaa ngi dégg fa qaala lahu cheikhu yaa ngi dégg cheikh Tidiane ne nekko law kaana cheikhu ba Nasir huna wa qultu lahu tahayyat la tahayyada mu ne ko xanaa xamoo sa sëriñ ba Nasir su fi nekkoon ma ne ko bàyyil sa wirdu bi nga nekk sax moom sax dina ko bàyyi waxuma la nag yow bi maanaa law amartu amartuhu bil iraadi amma huwa muhaafidun alayhi min al awraadi la ulaqqinuhu tariqati la faala mu ne lim ci jublu mooy su fekkonte ne mu ngi fi moom ba man digal ko ne ko na bàyyi wirdam boobu mu sos wirdam boobu mu jàpp ci moom yaa ngi dégg mu ne su boobaa dina dina bàyyi wirdam bi te dinaa ko jox tarixa tijaane bi nga xamante ne yaa ngi dégg mooy sama tarixa ci laa nekk konoon dina ko def mu ne waqat bachara nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bégloo na yaa ngi dégg Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu benn daaxila fi tariqati yi ne képp koo xamante ne yaa ngi dugg ci tariqa tijaaniya la yatadarraru dégg nga du la lor bi tarki tarkihi ci bàyyi bi ngay bàyyi li ay tariqatin ci beneen tariqa bàyyi bi ngay bàyyi beneen tariqa du la lor mukk yonent bi moo ko garanti Cheikh Tidiane képp kuy jàpp tariqa ya fekk yaa ngi nekkoon ci beneen tariqa yaa ngi dégg su boobaa boo bàyyee tariqa boobu du la lor mukk mukk mukk mukk mina turuqin maanaam ci yenn tariqa li aji duxuli fi tariqati ngir dugg bi nga xamante ne yaa ngi koy dugg ci tariqa Tidianiya boo bàyyee yeneen tariqa yi loolu la def dara loolu def dara dégg nga loolu nag yonent bi moo ko garantil Mawlana Cheikh Tidiane parce que Cheikh Tidiane wali yàlla yëpp yaa ngi dégg ci moom lañ naanee yaa ngi dégg kon seen tariqa yi wala seen martaba wilaaya mënut koo lor mukk koo xamante ne mu ngi jàpp ci moom boo demee ci baay mu ngi tagg Cheikh Tidiane ci loolu naan fa xayru sahbi qad taalla alayhi cheikhu afdalla wa naa fi daaka qad maala ilal balwa wa xusraani mu ne à part yi yaa ngi dégg Cheikh Tidiane moo sut moola la sut ku dut saxaaba yi Cheikh Tidiane moo sut dégg nga te Cheikh Tidiane moo la ëpp ngëneel yaa ngi dégg moola gën dégg nga bàyyi mu ne wa naa fii daaka lii may wax nag koo koy jéem a weddi nga koy jéem a dindi xat maa laa yaa ngi jëng ilal balwaa jëm ci musiba wa xusraanin ak perte sama wax jii may wax képp ku koy jéem a weddi di ko jéem a dindi dégg nga perte nga te ci ci ci ci ci musiba ci nga jëm yàlla nañu ci yàlla musal kon nga gis ne Cheikh Tidiane radiallahu anhu moo sut mboolem wali yàlla yi moo tax mu ne qadama faw fawqa arqubi qawmin da nga kulla asrin da nga siyaadatun qa asaw yaa ngi dégg mu ne qadama cheikhi tànk ndiggu Cheikh Tidiane yi da nga mooy maqaamaam yi la ci jublu ndiggu yi maqaama yi la ci jublu fawqa arqubi qawmin mu ngi ci ndoddu mboolem wali yàlla yi yaa ngi dégg cangam waxtu nekk dafay dolleeku Cheikh Tidiane waxtu nekk rek yaa ngi dégg ci kaw lay nekk parce que moom mooy sangu mboolem wali yàlla yi dégg nga radiyallahu anhu ko defee moo tax mu ne xanaa xamoo banaasir sax su fi nekkoon ma ne ko bàyyil sa wirdu bi nga nekk dégg nga dina dina bàyyi wirdam ba mu nekk mu jàpp sama wirdu bii nga xam ne mooy tariqa muhammadiya dégg nga sallallahu alayhi wa sallam kon nañ gën a ngooy ci tariqa bi yaa ngi dégg ñu bàyyi ci xel allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqa qadri wa miqdaari azim abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly daayiratul fadli kuñ fa nommé war ngay sant yàlla ñun lañ digil gëstaloon si di baram